19h di waxtu xibar yi ci biir 2STV li ci examen philosophie d'orteil Sénégal mu Foukifan, fukki fan ci juin di bis bi di président Lamine Gueye genn aduna élèves ñu tassel di wax ni nak épreuve ñu leen di consommer local groupe Sénégal Namuko ko jiital ñu bëgg jappalé entreprise sénégalaise yi conseil interministériel amsi sank ca Touba ab dalu terrasse daanu ci benn nit mu ñàkk ci bakkenam mu doon wuyoo ci turu Maam Jaara tollu woon ci juróomi at violence sexuelle ci temps wu guerre ab lël bu mag am ci tey UNIFEM bëgg jigéen yooyu ñuy sàkku ci yile occasion yoon aar ak ay daan ca lycée Lamine Gueye li di boycottu yenn professeurs yi nag kenn santiru ko lu ëpp ci élèves yi ñëw def si nak seen examen bi école bi nak am ñetti jury élèves yu bari nak di wax ni ci examen philosophie bi li di sujet 1 ak 3 la ñu jël ndax mo ci tané dañ ci ànd ak Badara Diop junneeg juróom-benn téméré ak juróom-benn fukk ak juróom-benn candidat yi nga xamanteni ñom ñoo répondre seen convocation ñom nak seen tànneef ñu ko wekk ci diggante sujet 1 ak 3 di ñaari sujet yi nga xamanteni dañ doon wax ci rôle philosophie ak li nga xamanteni mom moy apparition des sciences ci biir jamono. boy xol ci ça porte sur la réflexion philosophique moy première leçon yi nga xamni mom moom ngay njëkk a def bi koy tijjee bii nag bi nek ci commentaire bi yoy mom lañ terminer sax mën nañ wax mom lañ ñu mujjee expliqué moom lañ ñëw mu génn en commentaire. am man tànn na sujet 2 ça comporte sur science mom la tànn. parce que mo gëna a neex kii quoi xam nga rek mo gëna a accessible que yeneen yi commentaire bi ak euh, benn sujet bi. ba ñu yegg si sax salle d'examen yi nga xamante ni ñoo nekk ci lycée Lamine Gueye daanaka fekk ñu fa benn ndongo ba fa toog candidat yi nga xamante ni dañ leen xaajale ci jury 982 ak ñoom taxawuñu sax ak sujet yi nga xamante ni lañ leen joxoon li ni mel nag li koy firndeel moo di élèves yu takk yi nga xamante ni ñu ngi leen fekk ci ëttu école bi. parce que yëpp abordable na vu ñun ñëpp ah man terminé nañ programme bi am rek juste question de choix la. sujet yi moom tey ni sujet yi nekk ci dissertation bi contrairement dissertation bi c'est un peu abordable commentaire bi nga koo sans problème. naam sax dégg nañu yenn professeur wala surveillant yi nga xamante ni dañoo ne woon dañuy bank seen loxo lank ne duñu dem ci biir salle de classe yi terewul ne lépp mu ngi dox ci ni ñu ko bëggee fi nga xamante ni moom mooy centre d'examen bi ku ñu koy xamal di ki nga xamante ni moom la ñuy dénk lépp lu jëm ci supervision. amul benn jafe-jafe fekk naa fi équipe équipe bu bu bu bu rood équipe vraiment bi nga xam ñoo def liggéey bi yëpp. surveillant yi mënul wax am lu manqué mais tout cas salle bu nekk am na ay surveillant mu di nag ay anticipé de philosophie yi nga xamante ni dañu koy amal jamono ji nga xamante ni ñu ngi màggal anniversaire ki nga xamante ni moom moo fi woon président Lamine Gueye di ab kàngam bi nga xamante ni li mu doon jëmal moo di excellence ak rigueur ci wàllu liggéey mu mel ni sax ndongo yi nga xamante ni ñoo nekk ci bile centre dinañu bàyyi xel bu baax a baax ci ki nga xamante ni moom la ñuy tuddee lekkool bi dara ci moom sax lañuy wax fukki fan ci wéru juin 1968 nak di bëss bi nga xamné ci di Lamine Gueye ci la génn aduna mu di nag président mu donon président premier président assemblée nationale bi ñëk tay nak ñu doré bisu nak examen philosophie bi nak ak bis bu historique waaye nak ñu némé ku ne xalé yi ñu bari nak xamu ñu jaloore yenn kilifa yi dañ ci and ak leen Mbaye tey nag la élèves terminale yi tàmbalee di def seen i baccalauréat ñu ngi commencé ci li nga xamante ne philosophie date du juin bi nag nekk na li nga xamante ne dafa coïncider ak bés bi nga xamante ci la Lamine Gueye aduna. àdduna kii di Sansour lycée Lamine Gueye nag nee na fu mu toll nii xale yi ñoom amuñu benn référence. xale yi léegi dañu naan amuñu ay référence moo tax ñuy topp mbër yi musiciens yi ay yooyu ñooñu la ñuy alors que Sénégal fii wax dëgg yàlla manqué wuñu ay référence boo xoolee suñu passé bi.

dañ ko waroon célébrer comme ni ñuy célébrer anniversaire u Bob Marley dañu waroon vraiment ci programme yi ñu gën ko ñu gën ko jox gëdd pour que n'est-ce pas élèves yi gën ko xam. ñenn ci élèves yi nag jot nañu xam ki nga xamante ne mooy Lamine Gueye ba datu 10 juin sax nekk na li nga xamante ne mënuñu koo fàtte. Lamine Gueye nit bu mag la si si euh, Afrique particulièrement fii Sénégal. moom de yokk nañu jom parce que ngi jox benn jox nañu genre vocation bu nga xam ne ñun tam dinañ continuer suñu études yi. pour mon a def genre lu mu def nii comme comme ñun ni de nos jours comme jeunes yi ñu commencé détourner du droit chemin surtout nous les élèves mom la date du 10 juin Cela reste gravé dans nos mémoires pour toujours. té ñakul ci élèves yi ñi nga xamante ne datu 10 juin fàttaliwu len dara. xawma won ni tay la anniversaire Lamine Gueye. daaw fii laa jàngee gaa waaye nag xaw ma ni fay na te loolu fête bobu yëguma ko won sax man mi di élève Lamine Gueye daal xamoon na ni dal da représenter won dara ci Afrique affaire yoy rek te dafa dafa bokkoon ci Sénégal dafa amoon gëdd ci dëkk bi. am na léegi 46 ans ba mu tëddee ci cimetière Soumbédioune. soqe ko Saint-Louis kii di Lamine Koura Gueye nekkoon na benn figure historique ci Sénégal moom kat nekk na ki nga xamante ne muy premier juriste bu ñuul ci Afrique française nekkoon na tamit avocat ci fi nga xamante ne ñu ngi koy wooye AOF nekk fi maire de Saint-Louis ci atum 1925 nekk na fi tam maire de Dakar lu tollox 6 ans. moom nag carrière politique am mi ngi koy jeexalee ba mu nekkee ci njiitum assemblée nationale toog na fa nag ba le 10 juin 1968 date boobu nga xamante ne ci la génn àdduna. dans le reportage où Mbaye Leena Mbaye nag li di épreuve anticipée bu philosophie door tamit tay ci suba ci Mbàkke candidat yi gis né sujet yi tane na superviseur bi tamit wax lu ni mel lu jëm nak ci walum organisation muy wax né né mekul dara lu fa manké dañuy déglu Sali Jean madame Ndiaye ci micro Pape Sayar Mbaye condition yi ko défé baxna na ndax ñi surveiller ñi ngi fi ñëpp ñi ngi fi le matériel est disponible donc amul dara lu manqué daal ñëpp ñu ngi fi donc mën nañ wax ni côté organisation lepp bax na lepp jaar na yoon élèves ñëw nañ à temps surveillants yi ñëw nañ à temps distribuer nañ les copies à temps et nous avons démarré en à temps donc amuñu ben problème organisation joŋante bi ñi ci bokk moy euh élèves yi jàngee ci lycée bi ak élèves yi jàngee ci l'école privée donc ñëpp lañu jaxassé séddale leen ci centre yi fii am na ñu nekk ci lycée bi am na ñu jógee ci école privée yi tamit liñ ci xayma am na ñaari jury jury bu njëkk bi am na ñeenti téeméer ak juróom benn candidat beneen bi am na ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk benn candidat juróom ak benn candidat am nañ nag ñu ñëwut ñu ngi toll ci ñaar fukk ak ñaar bu ñu boolee ñaari jury yi benn bi fukk ak juróom-ñaar ñoo ñëwul benn bi juróom ñoo ñëwul épreuve yi ni ma koy apprécier mooy sujet yu baax la ndax du sujet yoo xam ne da ngay sotti li ci sa xel liñ la jàngal li la prof ba jàngal da koy sotti du sujet yooyu sujet yoo xam ne la da ngay xalaat donc xale bu nga xam ne am na capacité xalaat dina ci génn mais ñi nga xam ne ñoom dañoo foog ne philosophie da ngay dugal sa bopp rek li nga dugal ngay sotti ñooñu yaakaar naan daal dinañ xaw a am jafe-jafe tuuti pour traiter sujet yi crise universitaire ministre de l'enseignement supérieur indi Apwartan, Ganao waxtaan gannaaw menaces yi Mary Teuw Niane di wax ne nag lay ministre bi di diam ne ne université dañ koy Timikro ci micro Aïssatou université yu baré Nenu, nañu décide décidé nañu tàmbali am tamit Dakar ay faculté yoo xam Nenu. Lolu nañu Euh, suñuy réforme am crise day lu ànd ak réforme loolu li am solo rek moo di way jur yi moo di ñi nga xam ne ay nitu diine lañu ay nitu aada lañu woote ngir dalal xel yi ngir tamit ñun ñëpp ñu ñaax suñu doom yi ndax ñoom ñooy ndong yi ni ah jàng bi il faut ñu tëral ko tëral boo xam ni ëllëg lijaasa yi ñu cee am mbaa mën-mën biñ ci am fekk bu wér la ndax loolooy tax ñu am xëy mbaa ñoom seen bopp ñu defar seen entreprise mun a xëy mun a wutal ñeneen xëy loolu nag dafa laaj jàng bu jaar yoon dafa laaj coono dafa laaj it respecte sa ay professeur dafa laaj it dal loolu yëpp nag defe naa ni ci waxtaan yi ñu amal parce que dem naa ci biir université yëpp waa ngi waxtaan ak xale yi même weekend bii waxtana euh, représentant étudiants yi nek ci Dakar yépp té dana waxtana ak ñom gouvernement bu Sénégal bëgg def li di consommer local lu am ci Sénégal té sax fi ñi la bëgg nak jàppale entre euh, entreprise sénégalaises yi ci lu bari ap conseil interministériel am ci tay premier ministre jiite ko dañuy déglu Alioune Sarr ministre du commerce ci micro Ndeye Touré conseil interministériel bi nga xam dañ ko jagleel euh, li ñu naan consommer Sénégal maanaam fexe ba li ñuy euh, produire fii ci Sénégal jëm ci wàllu dund mais également jëm ci wàllu artisanat jëm aussi ci wàllu culture jëm ci wàllu tourisme ñu mën ko consommer non seulement fii ci biir réew mi mais aussi ñu mën ko consommer ci bitim réew moo tax ma leen di wax euh, dañu ne consommer Sénégal pas consommer local ndax Sénégal dafa toll foo xam ne nekk na ci sous région maanaam marché CEDEAO boo xam 300 millions de personnes ñoo fa nekk laaj na suñu entreprise yi mën dem di

Lors mes premier axe bi ñaareel bi moo jëm ci augmenter euh, li augmentation de la production Madame Yok, li ñuy euh, li qui ci produit Sénégal fii ci réew mi lu jëm ci jëm ci agroalimentaire Lors nag day euh, laaj entreprise yi ñu gunge leen ci wàllu compétitivité fexe ba ñoom ñu mën a defar ay produits mucc ayib axe bi moi fexe ba def la promotion Madame fexe ba suñu produit ñu mën leen a mën jaay ci bitim réew madame le premier ministre am na kuréel boo ne dina ko samp euh, fi ci primature waaye amna na boo ne dina ci waxtan ak président de la république ñu ko samp au niveau de la présidence pour wan ne euh, au plus haut sommet de l'État. manam fi gën euh, yaatu ci réew mi ñu jël nañ fa dogal pour accompagner la production nationale gannaaw bi seen congrès bi weesoo waa parti socialiste menacé nag rebellu parti yi léegi parti bi léegi nag lu ñu wax ne nag dañuy jël ndogal lu ñu jël képp ku fa nekk da nga koy respecté mu di ay kàddu Abdoulaye wilaan mu wax ni bëgg-bëgg Ousmane Tanor Dieng doon boole parti bi dañ ciy ànd ak Mamadou Awa Ndiaye dootuñu nangu kenn ku nekk di dem ak sa cëggal guy. yéen a ko déggandoo Abdoulaye Wilane waxam leer na ginnaaw bi militant yi wane seen ànd ak Ousmane Tanor Dieng parti bi dootul nangu benn fippu. socialiste mënta mel nu ko neex socialiste ni mu mën a mel mooy ni ko war socialiste mënta mel ni ko neex socialiste ni mu mën a mel mooy ni ko war ñun danañu tàggat suñu militant loolu bokk na ci lu bees nañu def jàngal leen former leen. mais léegi bu waxtaan jotatee diisoo weccante xalaat ku ne mën nga wax sa xalaat dootuñu nangu kenn yore communication parti bi nekk ci biir réew mi au lieu nga jaay xalaatu parti bi au lieu nga siiwal gis-gisu parti bi ngay wane sa bopp lu ëpp juróom-ñeent fukk ak juróom ci téeméer boo jël ànd ak moom taxul Ousmane Tanor Dieng bañ a fàll ñi ci des moo ngi leen di woo ci liggéey ngir gën a dooleel ak dëgëral parti bi fépp foo xam ne ay solis mën nañu nekk candidat te mu am enjeu te figure emblématique nekk fa dinañu fexe ba parti bi nekk benn dem fa teew parce que socialiste lañu bëgg ñu woteel kooka loolu nag dañuy xaar ci moom te incha allah dinañ ci liggéey ci biir parti bi ak ci biti parti bi ak sénégalais yi nga xam ne ni du ñu seetaan yàqu-yàqu wala béjoo wala ñëg parce que nit ki bu ñëgee rek day lang donc danañ ñëggati képp koo xam ne nii nekkoon nga ci position wu euh, gis sa bopp wala yëg sa bopp. parti socialiste mi ànd ak président Sall ci gis-gisam du joxe bopp ci làmmiñ waaye terewul benn yoon muy dem ak gëm-gëmam. moom boo ko déggee mbala booloo ànd da ngeen a bëri te wuute waaw comme nag dañu jàpp ne ñun tant que lii ñu gis président di ko doxalee ak partem euh, ñu ngi koy defar di ko ñoŋal di diisoo ndax diisoo mooy indi déggoo déggoo mooy indi bennoo tant que loolu mu ngi am tant que eh, liggéeyal Sénégal yàkkali démocratie def ay réformes institutionnelles yoo xam dafa dëppook jamono. Euh, fexe ba sénégalais yi wàllu xale yi liggéey wàllu paj mi wàllu mbay mi wàllu euh, wut këy liggéey wàllu dafa saaf rek rek la mu yoon yi dem dikk courant bi ak ndox mi ci réew mi ñu ngi koy bëgg saytu mais danañu fexe ànd ak président Macky Sall pour dal. buñ delloo ci bisu congrès bi nemmeeku nañ ne kii na ci boppu jigéen ñi waxoon na lu ëpp muy ay saaga yu Aminata Mbengue Ndiaye tegoon na ci deru ñi toppoon séddale tàngal yi ba nar a yàq bés bi Abdoulaye Wilane di ko ñaawlu di it jéggalu askanu waa Sénégal ma nga naan nit moomatul la lan moo waral bu élection locale di jege si kilifa yi di defar yenn yi lu mel ni tali bi nag mu doon laaj bi nga xam ne ñi di suñu ay naataango samp nañ ko ca village bu Wakam nag tontu yi wutu fa am ñoo xam ne dañu gis ne lu baax la ñeneen di wax ni loolu doyu leen dañ ciy ànd ak Babou ay caterpillar ciment ferme mbaa béton matériel yëpp yemb na pour ñu defaral yoon yi nga xamante ne ñoo yàqu si biir Wakam mu doon ay liggéey yu soog a commencé comme pour wax né élection yi mo tax gay yi ko mu nek liguey bo xamante ne ci population wakam ñaawlu nañu ko. tay population bi yewu nañu quoi ken mënatu leen ndax ñun góor gi moom moñu ñu moo je pense que amna lo xamné amul sens quoi surtout cet Avion daf melni bokul ci wakam ay naxé mbaay kase la ñun tay yewu nañ te suñu carte ñun ñoko mom moom ku ñu neex lañ koy sanel mais on est apolitique pour population bi voter ko quoi pour mu gagner élection yi euh, population bi kontaan ci moom waaye loolu parce que avant defu ko woon quoi ndax tali bi yàgg na yaakoo si. waaye kii di ak Fallou Gomis ñoom daal nee na liggéey lu baax la fi waaye nee na taxu ñu sandi leen seen carte yi. ñun li intéressé mooy ñu defar ñu suñu tali bii parce que tali bii sonal na nit ñi man fi la nek fii chauffeur laa damay dawal fi ci tali bi mais auto bo fi dawal 3 mois mu yàqu. mais bu ñu initiative di ko defar nag lu baax la wax dëgg yàlla même bu fekkee élection yi moo jub sax xam nañ ni politicien moom politicien rek nga vraiment parce que bu élection yi nii nii si diggante élection yi yaay comprendre waaye ñun tam waa Sud AVM tali bi enseigné ñu parce que fii su tawee soo bëggee génn pour dem joobi nii wala jël car sa doo mën a génn yoon yi dafa yàqu woon ndox bi fii nii duñ génn ak ban bi montagne

li nga xamné ci lañ djublu moy commission technique bi nga xamné mom mo wara recevoir le ministre nga xamné mo wara tok ak ministre bi ak collaborateur waxtan ci programme yi état bi euh seet pour 2015 lan la gouvernement bi fas euh donc euh, andi comme budget lan na andi comme programme ñu waxtan ci euh, euh débat bobu naka lañ cay demee ah yan matuay la député wara jël pour que ñu comprendre xam lan moy euh, donc débat beaucoup. buñ en commission technique en plénière assemblée député donc il faut que député députés xam débat député euh, députés xam préparer député disposition pour euh, poser des questions ministre pour que les nga xam fi peuple

ndaje ndakaaru bi di am waxtu bu beneen daje di am ca Londres ñuy waxtaanee tamit mbirum violence ci temps de guerre te jigéen ñi di ci gën a loru wante ñu gis ni ginnaaw woote comité international bi di ñaw lu ñu mel combattant yi di gën a amal ay ñawteef ambassadeur Grande-Bretagne fii ci Sénégal gis ni lu ci gën a doy waar mooy ñi amal ñawteef yooyu le dara du leen ci fekk. urgence bi tey mooy ñu taxawal ay jumtukaay yu dëgër ONU di ñaaw lu ñu mel muy wote ñu xalaat si yeneen forme de violence yu soxna yi di jànkoonteel Sénégal si wàllam ginnaaw bu mu adopté résolution à 1325 bu conseil de sécurité bu ONU soobu na ba noppi si xeex bi. Euh, plus de 200 000 femmes yoo xam ni violé ñu leen ci àddina yaakaar naa loolu euh, doy na firnde euh, pour que ñu xam nit ñi war nañu jog non seulement jigen yi wala góor yi euh, donc euh, li nga xamni violence yoy ñuy def jigen yi ci ci zone de guerre ñu xamni ni loolu war na dak définitivement waratul am parce que bu njëkk nit ñi dañu yaakaaroon rek ci bu nekkee zone de conflit lu la neex def donc jigen yi ñoo nekkoon donc euh, ay objet lañu woon donc non seulement dañ lay prostituer gratuitement mais mais dañ lay violer dañ lay teg lu ne

ca Touba benn dalu terrasse nag euh, daanu fa benn nit euh, ñàkk ci bakkanam ma doon wuyoo ci tuuru Maam Jaara tollu woon ci juróomi at sapeur pompier jël ko nag jamono ji yóbbu nañ ko ca hôpital Matlaboul Fawzeyni dañ ciy ànd ak Pape Sayar Mbaye soxna sii di xaas Diop am loolu jafe-jafe ngir mën a téye ay rangoñoom ñun ñoo fi newoon man ak sama wujju ak xale yi rek ñoo fi newoon ben paa bi mo fi won soxna si di yaayu xale lu jigen li ju wéy ci turu maam jaara amon juroomi at ñak ba kanam ginaaw bi terrasse bi daano ci kawam. ci bir lañ ko gas lañ ko sulé ma ko ci bir lañ ko sulé yalla nak mo xam ne xam li tax mu def ko yalla noppi na mané ko yalla mo xam yalla noppi na mo ko xam na waaye metti na torop de metti na torop ndax deewen moo mën xari soxna si di xaaj fi mu tol ni mu jafé ko lol ngir mu gëm ni domam jinn mam jaara tàggu na xale ba de man gisuma ko sax mo dañ na ma nax ma deewu waaye ah yóbbu dañ ko jannatu est ce que dee wut dee na de dañ may nax rek waaye dee na. jëye ji xëy am ci quartier bëgg Bamba ci Touba indeeti xel ñaar ci anam yi nga xam ni moom la ñuy amale tabax yi ñenn ñu ci bëri bëri gis ni sart yi nga xam ni moom la tabax laaj ñu ci bëri dañu du sàmmonte ak moom. néewu xale lu jigéen lii di wéy ci turu maam jaara amoon juróomi at sapeur pompier yóbbu na ko ci morgue bu hôpital Matlaboul nii kër gi jéye ji am ñu tëjandi ngir mën a moytu beneen loraange bu fi am. ab sayer ca bërëb bu xaar yàlla bu ci policier yi dugalul woon seeni loxo nag jëye am fa askanu makatube ñoo jóg nag ne duñu supporter seen suuf si yi nga xam ne dañ koy def ay dëkkuwaay ñi lay génn ci mbedd mi yàq nag lépp lu nekkoon ci bërëb boobu ne suuf si seeni ay maam ñoo leen ko may dañ ciy ànd ak Moussa Diagne amoon na ay jàppante yu métti ci diggante askan wi nga xamee ñoo yeewoo màkk tube ak ñi nga xamee ni ñooma dañuy seet fu suuf nekk rek ñu koy dagg di ko jaay ci anam yoo xam ni teguwul ci yoon waa màkk tube nag gannaaw bañ leen arto ñoom nag dañoo xëy nag wàcce ci site boobu nga xamee ni moo di xaar yàlla yàq kër yi nga xamee ni ñoom lañ fa tabax yàq tamit mur yi nga xamee ni moom la fa nekkoon ak tamit ay yenn borne ni nag loolu ñoom duñu nangu kenn koo xam ne di koy jóge feneen ngir jël seen ay suuf fa. taxawaay bi ñu taxaw fii tey ji sunu suuf si du nu nangu kenn bëgg ko jël ci sunu loxo. bàyyi noonu neen suñuy maamaati maam ba ci suñuy maam ba ci suñuy baay ba ci suñuy najaay ba ci ñu fi toll tey fi tey noo ko mos di moom te incha allah fas nañu ko yéene moom fii ba ëllëg nee na yooyu nag domaine national am na d' accord nañu ci bañu it ku lu cité waaye bala kenn di jox kenn ñun ñi ko moom dama jox ba pare suñu waxu wax dara waxu wax sax suñu doom yi war nañu am kër te kenn amagu ci dara communauté rurale yi ñu fi ñëwee ba léegi coowal suuf ku ne dégg na ko Sénégal dara indiwul di commissariat yi bi ñu des moo di sunu politiciens yi fi nekk ku bëgg a carte ñëw ci ne la ma noo ngi sunu terrain bii daal sunu bakkan lan teg ku fi ñëw bëgg ci def lu dul noonu duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg noo lank tey noo lank ëllëg ñi nga xamee ni ñoom ñooy yewoo Maka Touré nag ñoom a joxoñ ki nga xamee ni moom moo di président communauté rural bi ak ñeneen ñi ci lang président communauté rurale daal man bul ma sax waxam. moo ñu ma ànd. parce que booy seet kuy ci biir nga naan moom moo leen ci far ndax ay yooni yoon ñëw na fi ni noonge noonge ka indi gan am na bis ñëw na ni àllarba bii di ñëw tracteur bi dana ñëw pour commencer ka ba waag léegi at at ak nangam gisuñu xëy na àllarba jaay ñëwagul waaye donc ba léegi gisuñu dara muy yàggul bu sous-préfet ci boppam ñëw na tànk bam bu gis fi lii lépp muy ndaw président président comité waxaat ka ni que balaa ajuma tracteur dana fa dem ba léegi noo fi gisaguñu dara. ne meeku sax ni takk der yi na nañu ci fi nga xam ne moo di xaar yàlla ngir nag mën xool mbir mi naka lañ koy réglé askan wi nga xam ne ñooy yeewoo fii nga xam ne moo di ci màkk be ñoom nee na nu daal mbir moomu ñoom duñ ci gis lenn lu dul rek askan wi nga xamee ñoo dem jënd foofu seen ay suuf ñu teggi seen ay tànk bu dul lool nag seen deret mën na ci tuuru. doonoon ab reportage Moussa Ousmane Diagne muy jeexal nag xibaaru juróom-ñaari waxtu yi juróom-ñetti waxtu juróom teew jox leen yeneen i xibaar ci beneen kàllaama di leen jaajëfal.